a ñëpp mhm. mbokk avocat mi di ko jaal tamit njabootam ba nekk ses ker Ibrahima di ko jaal tamit euh, waa mhm. Touba ndax met mhm. ku ko xam-xam ni taalibe Serigne Saliou la ko bëgg Serigne Touba. ndeysaan euh, voilà mënuñu sore ci moom ndaxte dañ ko xam. Euh, mhm. te yal na na fi mu jëm gën a ko fi fi mu jógee Sénégal seet ki sama kàddu. Mhm. di jébbal njaalam njabootam yëpp ak képp ku nga xamante ni soppee ngoom wala am di jàmmam. Mhm. Euh, di ko wax ni rek di wax ñëpp ni suñu xel mu ngi ci moom te ñu duñ ko mës a fàtte ci ay ñaan. alors cheikh bi nag ñu ñu war a door suñu waxtaan gën ko xootal déjà ñu war ko ubbee ak l'affaire Hadjibou sumare déjà cheikh bi. Mhm. bi nga déggee kàddu yi nga xamante ni cheikh euh, moom Hadjibou Soumaré yëkkati na ko. ab mhm. laaj bu nga xamante ni samp na ko. Mhm. orienté ko ci ki nga xamante ni moom moo di président Macky Sall ndaje bu mu ki nga xamante ni moom moo di Marie Le Pen. Euh, di euh, njiit foofee ca France. donc moom Marie Le Pen Hadjibou Soumaré samp laaj. ni ndax ba mu gisee ak président Macky Sall. Mhm. Macky Sall ndax da ko jox koppar. bu mhm. tollu ci euh, douze millions d' euros. bu mhm. ñu ko xaymawee ci suñu suñu xaalis mu nekk sept euh, virgule neuf milliards. Euh, ci loolee nag tey ba ñu xëyee woon nañ ko sûreté urbaine ngir déglu ko. moom nag ah si fàttali jotoon na def ab poste ni mu ngi jégalu ci kàddu yi nga xamante ni ci laaj bi nga xam sam laaj na ko mais woo nañ ko ci sûreté urbaine. dem na wuy ji ko dem na wuy ji placé nañ ko en garde à waa d' abord xam nga Bouchra Diébou Soumaré c' est un homme d' état na fi ay responsabilité yu mag nekk na fi premier ministre nekk na fi directeur du trésor yaakaar naa xaw ma chargé du budget genre yooyu maanaam occupé na fi responsabilité yu bëri jóge fa jiite benn commission ca CEDEAO xaw ma ca UEMOA nekk un homme d' état dugg ci langue politique bi. doon dagan baatu askan bi ngir nekk président de la république ci dernière élection yi waaye boo xoolee depuis buñ ci génnee ba tey waxam bëriwul daanaka mun naa ne est-ce que du bii mooy sorti bi mu ci tegaat donc nit la koo xam ne kon du kuy wax ngir bëgg wax nii rek <coughs> vu posture bu mu am su demee ba wax rek am na parce que ay mbir yu ko ñor walla ay éléments yu yuñ ko indil dëgg laaj du dëgg loolu munuñ ci xam mais am na daal lum xam lu luñ ko wax loo xam ne tax na mu génn ci retraite bi mu nekkoon génn ci espace public bi poser ay questions à la première institution de ce pays muy le président de la république. Mm. bi muy poser question bi xamoon na risques yi ci nekk yëpp. xam na institution bi président nekk ndax il la été premier ministre xam na moom li ko ci mën a topp yëpp donc bu demee ba jël risque poser ay question bi je pense que natt na li muy def fan na toll. waaw nit nag bu nattoo yooyu yëpp jël responsabilité génn wax je pense que mérité woon na tontu leeral dans un autre pays su lii amoon le président de la république doon na gi doon na apporter réponse pas façon bi ko gouvernement bi defee nga xam c'est le ministre Abdou Karim Fofana porte-parole du gouvernement parce que moom interpellé wul le gouvernement c'est le président de la République qui l'a interpellé. def ci communiqué def ci fii plateau bi euh, Doudou Wade bi ko mhm. Manuel Aydara invité. Mhm. nee na euh, déjà gouvernement bi fi njëkk a moo di mhm. communiqué moom jàpp na ni ay laaj bu mu bu mu bu bu mu laajte. soxlawul woon gouvernement bi. effectivement def ci tollé boobu noonu def ci communiqué. le président mënoon na def benn tweet sax démentir benn tweet. rek moom nee na comme laaj kese la tontu rek doyoon na ci. tontu rek doyoon na ci donc bu tontu bi yemee am na wala amul mu mu dàq ko apporter ay éclaircissement ngir l'opinion nationale ak internationale jarul woon woo ko mu ñëw ñu def ko mandat de dépôt ngir man su ma doon ñoom buñ jàppee ni dafa juum mënoon nañ ko placer rek sous contrôle judiciaire. nangu passeport am tere ku génn dëkk bi déjà vie son âge très très avancé soixante-douze ans condition garde à vue kilifa la occupé na fi yenn post yi je pense que xaw na metti ci moom xamoo ndax wér gu yaramam permettre na ko ko ou te déjà braqué nga plus de projecteurs ci réew mi parce que am na ñu ko xam niveau international mhm. am na ñu ko xam ci koo xam ne du un opposant virulent au régime ba mun nga ne dañ ko war a sanctionné ndax c'est un habitué des faits wala il veut attaquer maanaam ku yàgg di attaquer institution yi la wala mun nga ne kat kii c'était de trop c'était une première mu def genre acte bu mel nii ci langue politique bi munoon nañ ko régler neneen mais nii boo ko woy placé ko su mandat de dépôt presse nationale comme internationale danañ ci wax xëcc nga plus de curiosité ci doxalinu justice ci réew mi bëri ñoo xam ne amaana actualité dëkk bi intéressé wul woon dana leen intéressé am na ñu jàppoon ne opposants yi doon jàpp dañ leen doon jàpp parce que c'était des hommes virulents que dañ ko mérité kii boo ko jàppee am na ñoo xam ne kat danañ commencé poser wu des questions mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays fan lañ toll lii état de droit la wala du état de droit la lii persécution envers l'opposition la wala lan la maanaam plusieurs questions jàpp gi ñu ko jàpp nii je pense que baaxul ci communication état bi mënoon nañ déroulé neneen ak moom kii dawul demul fenn placé woon ko sama sous contrôle judiciaire tey passeport am bàyyi ko mu nekk ci dëkk bi moo gënoon oyof moo gënoon moyen de dégâts que placé gi ñu ko placé su bu a niroog tout affirmation mu ci ci li nga ci li am mhm. bi mu sampee laaj bi mhm. euh, euh, mhm. mu ñu nga xamante ni amuñu moyen amuñu koppar ak yu ni mel donc bu ñu demee ba war a débourser lu toll ci neuf milliards ki suñuy koppar di ko jàppalee ab française loolee war na war a mën a tey donc est-ce que du kàddu yooyu mu toftal ci laajam tamit moo waral lii xam nga man gëmuma ne euh, kàddu yooyu moo waral lii lépp mais <coughs> contexte biñ toll ak laaj gi mu laaj moo waral lii amaana bu ci toftalul woon baat yooyu sax dinañ ko woo laaj ko ndax contexte bi fi mu toll la fin mandat jëm ci deux mille vingt quatre l' opposition taxawaay gi ñu taxawee opinion internationale ñii d' accord ñii d' accord te ñu ngi ruuma naat que le président Macron soutenirul président Macky ci troisième candidature nga dégg ni. am na ko laaj ni principal opposant président Macron le président Macky Sall recevoir na ko kii di laajte ndax ba mu ko recevoir jox na xaal wala jox ko xaal je pense que contexte yooyu yëpp ngir fay coow li bañ ko jox benn tollé moo tax ñu réagir yi nii maanaam lii réaction la nga gis ni réaction très musclée la ngir fay coow li attention képp ko aventuré wu ci lii yow it lii moo lay xaar. gis naa sax la ministre Abdoulaye Sow naan ko mm-hmm. oo oh, taaw mm-hmm. donc dangay ngay comprendre ne c'est juste pour. éviter plus de débat ci maanaam ci mbir mi. ni ci dossier mais en retour moo nekkul retour bu ndaw am na sax ñu moom moo moom moo ñëwa ñëwaale ak coow parce que am na ñu ne dafa am quand même ay ambition. pour ah, pour pour présidentielle yi waaw moom am na ay ambition politique il a des ambitions présidentielles mais je pense pas que Hadjibou bokk ci principal euh, les mieux placés pour pouvoir remplacer le président Macky parce que actuellement sénégalais dafa am benn gis-gis dafa mel ne ñoom ñaar nag dañoo mos a bokk ay ambition. waaw ñoo utee woon. voilà kii woo uutu kële ca poste primature. mais boo xoolee ni actualité politique di doxee lépp ñoo sénégalaise di apprécier acte homme politique yi ñuy posé da ngay xam ni façon politique bi aju bu doon mëne. Mm-hmm. jusqu'à maintenant sénégalais yi gëmuñu boobu mooy toog sa ruq doo wax ci actualité bi doo wax ci lu leen soxal sénégalais yi wan nañ ginnaaw façon de faire boobu de la politique xëy na peut-être pour se rattraper mu def maanaam coup bi. ñëw ngir bokkaat nekk au devant de la scène xamoon na ni peut-être bu ko defee lii dana ko ci fekk peut-être garde à vue bi dana ko créel benn capital de sympathie peut-être peut-être autant de questions la mais lu ci munte am moom mooy façon de faire de la politique bi muy defee moom ça ne plus au Sénégal mooy toog sa ruqu toog ba élection jot nga ñëw boo xëy na loolu tam lañ ko yee mu bëgg bokkaat indi euh, jeu yi maanaam def coup bii daal. nga xam ne placé waat na ko au devant de l'actualité mais y a beaucoup de risques. oui y a beaucoup de risques. mais ndax euh, ce temps ci tamit ak euh, jàpp yi ni mu gënee bëri dont ni nag euh, tàmbale woon na déjà bëri mm-hmm. cette affaire avec. Hadjibou Soumaré l'affaire Pape Ndiaye Wolf également mm. ndax arrestation yu bëri yi xew temps ki dëkk bi boo nee mbiriñ mbàcc ñu jël mm. ñu la ràpp ci kaso bi ndax loolee tamit euh, dina gën a tey ji président jéego yu mu nekk di teg bu dee bëgg na troisième mandat ak déet est-ce que lu ni mel mënu ko na saxal arrestation yooyu xam nga day gën a dëggal li nit ñi di wax ne dafa am benn projet bu mu nekk di dérouler mooy vouloir écarter bépp obstacle ngir mën a am troisième mandat ñoom ñoom ñu di ko wax deuxième quinquennat alors que loolu c'est même insulter l'intelligence des moom boo xoolee lépp luy obstacle moo xam nit kuy wax nga comme chroniqueur moo xam journaliste d'investigation nga buy génne mauvaise gestion ci <coughs> ay fonds wala ay budget wala ay projet moo xam homme politique bu virulent wala opposant wala membre société civile da gis ni facilement mun nga retrouver wu en position mandat de dépôt dañ lay jéem a écarter dañ lay jéem a museler mm. ñoom ñaari option la ñam mm. soit da ñëw bokk ci noos gi maanaam la bâton wala la carotte dangay ñëw bokk noppi mëkkal te ne mu munoo ko ah bant bee lay xaar et loolu moom lañ nekk di appliquer. Mhm. la preuve journalistes yi féetewoo ñoom de leur côté. Mhm. mais da ngay gis ñu tenir ay propos yoo xam ni mais beneen journaliste bu buñ jàpp ni ñoom da leen opposé bu ko tenir automatiquement mandat dépôt daxa ci fekk toog nga fii nit bind na téléphone journaliste moo wax. effectivement suñu force de défense yi seen ñaari membre yooyu noonu disparaître woon les portables de diw on parlait maanaam indi lien ci diggante yi beneen journaliste bu ko waxoon dañ lay jàpp automatiquement alors kooku mu ngi dox tey soxlaam toog nga fii dégg apologie au meurtre nit wax ni diw dañ ko war a rey bu dee buñ ko reyee réew mi am jàmm déggoo fi mandat dépôt déggoo convocation déggoo sax mise en demeure u alors que pour moi coupé nañu signalu Walfadjri pour moi jàpp nañu euh, Pape Ndiaye mandat de dépôt Pape Ndiaye waxul loo xam ne par exemple Madiambal Diagne waxu ko ci dëkk bi Madiambal il n'est pas inquiété mi ngi doxi ay soxlaam mi ngi dem di ñëw donc deux poids deux mesures boobu ça pose problème léegi nag nga indiwaat ci arrestation tout azimut yi mm-hmm. à tout moment ñi ngi lay jàpp à tout moment ñi ngi lay convoquer à tout moment ñi ngi lay tenir en garde à vue donc loolu day teye xelu sénégalais boo bëggee wax ne réew mi état de droit la day teye ci xelu sénégalais boo la donc li ñu gis ñun fi mu toll nii mooy li ñu daan gis ci fin régime Wade moom la ñuy gisam ci bépp régime boo xam ni daanaka perte na li nga xam ne mooy assise bi mu amoon. Mm. perte na légitimité bi mu amoon perte na soutien wu majorité peuple bi da ngay gis ne après day dem ba braqué wu lam daan may nit ñi nga xam ne seen droit la nit ñi ñoo ko moom. dafay obligé di ko piétiner hmm. donc ñun loolu lañ commencé gis actuellement ni ak régime ah, pour l'affaire Hadjibou euh, moom sauf euh, changement de dernière minute demee war na jano ki nga xamante ni moo di juge bi hmm. euh, ñu xam ani mbiram fan lay mujjee mais tout en espérant que ni du nekk mbir bi nga xamante ni dina sore parce que li nga ko wax la nekkatul xale donc waaw yenn situation yi day métti ci wàllu détention ñu taxaw ci l'affaire Pape Pape Ndiaye suñu hmm. confrère Pape Ndiaye Pape Ndiaye moom ku ne yàgg na ma seetaan ak moom. Mhm. Euh, si suñu programme na daan defee tous les vendredis muy nit ku baax lu weesu li nga xamante ni mooy liggéey bi déjà naka nga gisee moom it euh, arrestation am.